Serigne Saliou ñu ngi lay nuyu euh, amuñu woon occasion bi sànq di la dalal également sur le plateau. merci Fatou Abdou maa ngi nuyu suñu téléspectateurs yi te di souhaiter ñu ñu yëpp. at at mu bees mi ñuy jëm yàlla na nekk at boo xamante ni moo gën vraiment ci at mi nga xam moom la ñuy génn parce que nit ñi sonn nañ ci lool lool lool waaw bu ñëwee nag ci discours président de la république man damay jàpp ne discours yi boo leen di déglu chaque année tu as souvent ay chiffres la ñuy génne rek dugalaat mais presque c'est le même format dara du ci changé te dama jàpp ne ren <clears throat> dafa am benn euh, ren année spéciale la parce que dañu traversé année bu métti métti ak Covid bi ba pare ñu traversé année boo xamante nii pratiquement li nga xamante ne moo dee ci ay doomu Sénégal Sénégal dafa bëri surtout ci immigration clandestine bi li ma gën a métti mooy secteur yi nga xamante ne ñoo gën a nekk en crise président presque dans son discours wax si lu bëri pêche moom dañ ko jël teg ko de côté te dégg scandale yi nga xam ñoo temps yi ci pêche bi loolu président bi waxu ci dara lu ci jëm lu jëm ci même agriculture bi président bi il a donné des chiffres te man si chiffres yi aussi je les conteste je les conteste parce que le chiffre de 1 million 800 ba léegi ñoom waxuñu chiffres yi fan lañ ko jëlee te bu ñu demee demee ci calcul yi aussi ñu wane ne chiffres yooyu tegul fenn donc moom il s'est glorifié de ces chiffres là mais secteur yi nga xam ne moom la jànkontol ren entre producteurs yi ak huiliers yi loolu dafa nekkoon loo xam ne tar na tar goo xam ne man foog naa président buy wax dina wax au moins nu ñuy réorganiser waat le le secteur parce que même gis nga ñi nga xam ne ñoo nekk euh, les huiliers la loolu joytu nañ ko ba tàyyi ça la présence des chinois et en plus aussi le fait que état bi ba léegi du intervenir dans ce domaine là su ma demee dëgg ba waa soxlaa ko si ne ñoom dañuy wut sax seen i tool léegi pour mën a am seen gerte c'est parce que ñooñu peut être tey jaaxle nañ te état bi ñoom ñoo la war a dimbali ci loolu donc président président bi waxul waxul lu jëm ci loolu encore aussi le secteur de l'éducation le président n'en a pas parlé même su waxee au départ tuuti mais waxu ci dara parce que quand on parle aussi des pour la santé je crois que aussi aujourd'hui pour l'éducation aussi le président devait au moins nous parler des abris provisoires yi nga xam ne ñoo fi te waxuñu dara lu nga xam moom ci dem donc daf ci am secteur yoo xamante ni man foofu laa doon xaare président bi en réalité mais président bi fa léewul foofu il a fait un discours bilanciel il a fait son bilan j'ai l'impression qu'il se prépare à une campagne électorale et en plus donc pour man j'ai l'impression que c'est un candidat qui se prépare à une élection présidentielle alors, que le format devait changer cette année mhm. alors maître euh, bu ñu déparé d'abord euh, ci li nga xam ne mooy le secteur de la santé euh, wax na ci li nga xam ne moom mooy plan de riposte bi ñu ci teg 52 centres yoo xam ne indi nañu ko traitement alors que bi ñuy door ak mbas mi benn centre kese moo fi nekkoon bu ñu jëlee déjà wér-gu-yaram ak le discours du chef de l'État ak li ñu jot def ak li ñu mbébét yow ban jàngat nga ci am bon dans l'ensemble li ma ci retenir c'est que année 2020 bi année boo xam ne la pandémie bi moo occupé l'actualité dans le monde entier mais plus particulièrement également au Sénégal moo ñu xam ne moo ñu intéressé directement euh, c'est vrai que président de la République li mu def ci discours am yëpp il a mis l'accent sur la pandémie et effet yi mu am sur l'éducation même su fekkee waxu ci lu bari mais également sur la résilience ñëw na ci wax na ay chiffres Euh, mais également sur les réalisations au niveau du plateau médical euh, mais je pense que euh, am na yoo xam ne tamit waxtaatuñu ci parce que 2020 c'était uniquement la pandémie il y a eu beaucoup de bruit sur le plan politique loolu am na solo certes accessoire parce que la pandémie bu tegoo moom je pense que loolu la ñuy jiital ci kanam je pense que aussi côté pandémie bi c'est vrai le monde waxtaan nañ ci benn ñuy Sénégal am na taxawaay bu mu ci am boo xam ni nañ ko Mais il y a un problème aussi de gouvernance au niveau de, de, des réalisations, du budget, de ce qu'on a enlevé au niveau de la résidence, de ce budget force Covid. Euh, Aujourd'hui, la réduction la, de des comptes. yooyu dafa am solo xam nga ay chiffres baax na ay réalisations baax na loolu ñuy souhaiter dans un pays qui se développe mais ni nga ko def. ci ce problème se pose au Sénégal la santé effectivement kooku mu xam xam ni quand même l'année 2020 problème se pose alors des personnes xam ne neen ñoom du ñu rendre compte sur ça. bon euh, je parle de tout le monde. je ne veux mhm. pas personnaliser le débat. Mhm. mais souhaiter daal que suñu defee bonne gouvernance peut-être que esprit yi dem ci leneen lu dul coow lu bëri. c'est ça le problème parce que coow li c'est uniquement au niveau comment on dépense ça on peut nous dire un budget de quatre mille quelques milliards mi du ngi xam ne fu mu dugg nu mu duggee donc loolu tamit ñu ngi si doon xaar vraiment le chef de l'État surtout concernant les infrastructures ah kooku moom je pense que euh, dëkk bi fi ko jëlee woon <laughs> parce que je suis de la mouvance présidentielle euh, dëkk bi fi ñu ko jëlee woon ak fu mu egg fii au niveau des infrastructures ngi naan ngi euh, sur mille deux cent hectares là aussi di ñaan mu préciser ko bu baax parce que y a un débat sur coow li am na boor boobu à Diass que je connais très bien d'ailleurs mhm. et je pense que aussi sur le dialogue national le dialogue politique euh, la recomposition politique au Sénégal loolu yëpp c'est des choses qui ont occupé les Sénégalais mhm. et qui continuent à poser di nekk débat je pense que yooyu yëpp soxla woon nañ ko mais se limitant uniquement à dire que je dialoguerai avec tout le monde moi je ne veux pas qu'on fausse le suffrage des Sénégalais ils se sont prononcés ils ont dit taxawal fii yow yow taxawal fii faut pas euh, lu mënul ànd moom je pense que on en parlera au cours de ce tout à fait alors Ngouda euh, euh, lan nga xaaroon ci li nga xam ne mooy le discours du chef de l'État te gisuwoo ko nan nga ko jàngatee l'adresse à la nation bi Macky def léegi téléspectateurs yi di nuyu aussi ma bokkal plateau bi lu ma xaar loon d'abord lu ma gis d'abord il faut il faut mu wax ko bon de toute façon sur la forme am na lu am solo parce que man loolu dama ko daan wax tout le temps on a vu le président de la République quand même venir donc euh, et à côté de lui il y a eu le drapeau n'est-ce pas national et le drapeau africain ça c'est à saluer quand mhm. même mhm. ça c'est important parce que man quand donc euh, ça m'a frappé loolu lu am solo la quand même ñu am le drapeau africain à côté et le drapeau national ça montre quand même que le Sénégal est le centre quand de l'intégration africaine loolu moom c'est à saluer beneen bi si topp mooy le discours quand même le timing donc c'est un discours relativement long où le président de la République fait un bilan. Et je pense que Seni Saliou l'a dit, on a l'impression que le président de la République est en train quand même de faire un discours de mi-mandat. En fait, c'est ça en réalité, en parlant euh, de, de, réalisations. L'autre chose, c'est qu'en réalité, il a essayé quand même de survoler, quoi qu'on puisse dire quand même, euh, ce qu'il a fait et ce qu'il voudrait faire par rapport donc euh, à l'avenir. Ah, li war a ñëw quand mm-hmm. 2020 donc les Sénégalais étaient durement éprouvés la pandémie wax na ci certes mais am na des questions yoo xam ni c'est des le président n'a pas parlé de l'eau par exemple ndox ndox mi dafa am solo donc. Euh, ak askan wi ni daan fanaanee di sonnee ci mhm. ndox mi nit ñi ni ñu kii man dégguma ko mu wax ndox. électricité la wax mais waxul ndox. Mhm. loolu daf ma jaaxal est-ce que da ko fàtte wala lenn. Mhm. te gis naa ay nit yoo xam ni dañu nekk ay semaine fii parcelle ñu am ndox. te waxuñu ñooñu nan lañ leen di joxee ndox wala ndox mi ñuy jël ndax sell na wala li ñooñu tey jii nii ils sont lésés et le président de la république qui est aujourd'hui le premier sénégalais ñoom jox ko leur suffrage waroon na ci wax. beneen bi ci topp quand même si Saliou wax na ko et je pense que génn na fii mooy le président de la république n'a pas parlé sur la gouvernance publique. et que la gouvernance publique am na lu ci posé prob depuis que donc mu fàlluwaat bi ci topp aussi day def ay bilan yoo xamante ni tey par exemple chiffre yi mu joxe mais chiffre bi mu mooy moom dafa promettre un million d'emplois c'est un engagement mais moom non pour par exemple son mandat de cinq ans alors que su fekkee dafa def un discours n'est-ce pas de mi-mandat war na wax fu ci toll mhm. en réalité man jotuma benn chiffre beneen bi ci topp mooy dama jàpp ni le président de la République loolu c'est une erreur ba pare mi ngi continuer di ko def muy la DER ne peut pas être rapide l'entrepreneuriat doit être productif il faut ñu bàyyi loolu. loolu mënoo xëy rek. non c'est une erreur loolu ñu. dindi ko bu yeboo ñu wax bi sax c'est pas c'est pas mhm. techniquement mhm. en réalité c'est pas du du loo xamante ni dafa dafa dafa dafa bi en fait l'entrepreneuriat doit être productif moo tax wax programme fii programme fee loolu pour créer un grand ministère du développement productif par exemple mhm. beneen bi ci le président de la République par exemple am na lu mu waxul loo xamante ni c'est important c'est la question internationale pour man la question de la géopolitique la question par exemple terroriste mais aussi la question am na ay faits yu fi xew en Casamance et cetera waxu ci et donc la sécurité des Sénégalais 2020 était quasiment une année macabre ci ay donc yoo xamante ni nit ñi problème de sécurité la ñu am dans les quartiers et cetera. Mhm. waroon na wax quand même donc qu'en est-il exactement. Mhm. en tout cas donc loolu mooy les aspects positifs pour man et les aspects négatifs. ñu mën ci dugg après les aspects négatifs alors euh, monsieur le ministre euh, bu fekkee certains points yoo xam ne dañu intéressé Sénégalais yi les licences de pêche gis i ndox mi ay njaboot yoo xam ne dañu koy fanaanee root njàng mi. coow li ci am euh, le président de la République omettre ces questions très importantes nan nga gisee loolu. waaw euh, ni ma ko gisee discours 20 minutes euh, dafay jug ci rek wax mais gouvernement c'est. taalal sa micro.